masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fàllilu guddeeg bëccëg nu jublu Seyxi Fàllilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fàllilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef yi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 aqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng bay moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji alaaji lay mooy xalifa moo biyoonu makka naw leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina ay million sappee moo bi yoonu Makka ak Madina Alaaji Baara saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu del siyaare Amadul Makkiyu del siyaare waa Baqiya xabru Tayiba siyaare kër njool Makka xam nga barba Seex Fallu añ na fa Makka sànni jam la fon doj wa dem Arafat delum la dem na Safa dem Matam dalli fa taxaw makaama dem na langale fa Seex Fallu julli jumaa ja naan ca biir kaaya waa Makkata yaa bari ndam yaa am jaloore ndam a tiital mu ne su laa ngañati suukar maa moom bari jël na ndam la bambani fallu laayi fallum yàlla alaci yam mbàkke bu soy ni jaayam bamba di di jaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya ziyaare si barab sëñ Fallou bi màggal si waaw ah, ñëw leen si jàmm ñu ngi si màggal gi wax dëgg yàlla kontaan nañu trop Koungheul ah ñu ngi jógee ñëw pour màggal si. waaw gisoo tey ma ñëwaat màggal si waaw gën a kontaan ak géeg mbég ak yokkate. ak ni naatalaate ni dafa barab bi gën see kontaan trop. Oh, xaw na yàgg nag tuuti nag yàggul nag yàgg na yàggul. waa nu sant yàlla bu baax a baax parce que dañ koo jaayante ba ñëw yàlla jàppale nu si nu fas si liñ fas yëpp suñu borom def ko euh, kees. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax ñëw nañ si jaam. waaw dëgg la dëgg màggal gi waaw neex na de waaw ala daw me na de waaw macha allah ah ah rek waaw mbégte rek Tivaouane maa ngi jógee ba Tivaouane waaw. depuis depuis 9 ba tey maa ngi ci rang waaw. waaw lépp mbégte rek mbégte rek sant yàlla bu baax rek. ñaan yàlla rek li li ñu am ni yàlla nañ ko gën di fekkee rek gën koo tal ci barke Sëñ Fallu li dara daa ko man Cheikh a Diop laa tudd maa jóge ba Ndakaaru Ndakaaru laa jóge ñëw. ñëwal waaye jërëjëf Sëriñ Tuubaa rek ñëpp kontaan nañu ñu fekkee an yu bëree bëri bëri suñu borom suñu borom nangul suñu ñaan. ñun ñooy bu ba Dakar. Uh-huh. waaw màggal yi da jóge bu sori ñëw gaan pour jaanteeg pour borom bés bi quoi maam Fallou moo xew la lu ci waa jaante rek noonu la. Thiès laa jógee mais laa dëkk. Saloum laa dëkk Saloum laa rek. kese ndax euh, señ bi moom ku nekk am na sëriñ de mais ku jàq ku ne sëñ Fallou ngay woo kullu nag muy murit ba muy tijaan ba muy xaadir ba muy laayir muy ñaseet ku jàq sëñ Fallou ngay woo parce que sëriñ Salim ndax man damaa juddu ci sëñ Fallou yaru ci sëñ Fallou sama ma yar te moom lu sëñ Fallou ñoru ko lu dul sëñ Fallou ñoru ko barke sëriñ Salim Mbacke ak ak euh, bu ñàkkoon bay dee moom boo tuddee sëñ Fallou xolam day sedd kon man damaa juddu ci sëñ Fallou yaru ci sëñ Fallou barke sëriñ Salim Mbacke man man instant bi am ma leen lu may ñaan muy sama maam laay ñaanal yàlla na ko yàlla xare aljana man moo ma yar masin joona suubu dem gaar ba leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem law lu yow Fallilo yaay Mustapha yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu daagul dugal tariixul ay alaaji yaay Rasulullaay jam nga fa Makka fam nga ni lilaay alaaji Fallu yaa juboog lilaay am nga ngeen li yàlla hubbulaahi fam nga ngeen li bàmba hamdulaahi sariyatu aqiiqatul iimaan alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Moodu bu sa Moodu bu sa jeng sëriñ Moodu bu sa jeng sëriñ Moodu bu sa jeng bay baa ab xalifa di moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa alaaji Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka leen néew moo bi yoonu Makka ak Madina na ay million sappeena moo bi yoonu Makka alaaji Baara Mbàkke saana diina yaab siyaare amadul makkiyu dellu siyaare amadul makkiyu dellu siyaare waa baqiya xabru tayiba siyaare kër njool Makka xam nga barba Cheikh Fallu añ na fa màkk ba sànni jamra foon doj wa dem Arafa dellu umra dem na Safa dem Matam dalli fa taxaw makaama dem mi na langale fa Cheikh julli jumaa ja naan sam-sam kaaya waa yaa bari ndam yaam jaloore ak i tiital mu ne su la ŋaŋati yaati suukar maa maam sa bali jël na ndam la bambaani fallu laayi fallum yàlla ala ci yom Mbàkke ni jaayam bamba baayam fallu di jaaram yaa jara yaa jara joxi daaya man Marie Gningue laa tudd Ndar laa jóge Ndar laa jóge waa Ndar waa ziar naa ñëpp ba xol bu sedd rek nag xol bu sedd rek xam nga yëfi seen Fallou moom Euh, lu mu la jaral rek da koy jar rawatina nga fekk fi nit ñu baax ñëpp ñu tëdd nga ziyaar leen yéeg-yéeg bi ngay am moom yow ak suñu borom rek yéen a koy xam ma ciy rafetlu trop di ci kontaan sama xol dafa sedd daal dafa sedd trop trop trop trop parce que Kazu Rajab moom képp kuy taalibe Sëñ Fallou rek da nga koy fannoo man na yàlla dimbali na ma ba nga xamante ni at mu ne damay bëgg di ko teewee. lépp sant yàlla la rek lépp sant yàlla la rek ginnaaw ñaari at yi passé yëpp yàlla def na ni amul euh, ndax euh, Covid bi yàlla def mu jeexal ko aussi tamit may nu ñu fekke ko waat ko ba di ko def sant yàlla la sant yàlla bu wér-wér. ñëwoon màggal si màgg sëñ Fall bi moom gëjoon nañ Touba waaye ren dañoo jaayante ñëw. géej waaye lañ jóge Guédiawaye waaw master base waaw kontaan rek kontaan instant ziar naa ba génn mais dama bëgg a toog nii jàkkaarloo ak jumaa ji di ñaan sëñ Fall di ko ñaan rek lu mu ñu may chaque di ñaan jàmm rek tamit si réew bi Kër Massar xanaa seet si woon sama waa ji rek xam ah, nga lu ma ko mës a ñaan rek gis naa ko di ko di ko ñëwaat di gën a ñaan rek pour mu doon gën ñoo dolli ñu daal ndax gis nañ luñ ko ñaan rek man boog lépp lu ma ko ñaan gis naa ko xanaa mu bàyyi ma ak sama borom kër rek sàmm sàmm samay njaboot teggil ma bépp jafe-jafe bi nga xam ne dama ko indaale yàlla ma ko teggil ci barke sëñ Fallou Mbacke yàlla bàyyi ma ak sama borom kër nag ak samay njaboot. naka la Soxna Kumba. foo jógee. Njaareem. Mhm. ñu ngi waaw sant bu ba wér ñu ngi sant. yal na lu fi yàlla lu fi nit mbébét rek yal na ko sëñ Fallou def man bu ma la fi ma jaar Fall dañuy sant rek. dëgg-dëgg dañuy sant nag. sant nañ bu wér yéen ñu leen di gërëm amuñu seen fay waaw Fall yal na leen yàlla fi bàyyi ngeen gudd fan wér eh, muy luñ lu kawe nag télé bi lii na kawe parce que yéen nag kenn du yéen. waaw dëgg la dëgg la ñaan yàlla yàgg koo fekke rek ndax ñun moom dañuy waaye sëñ Fallou sëñ Fallou dañoo teral moo tax bu bisam ñëwee dañ koy jaayante rek ba agsi ñuy jógee Dakar caaxoy waaw bég rek mbégte rek waaw li sëñ Mountakha wax ayam gi moom bég rek ba mu ayewul sax ku dugg fii dangay ngay bég waxuma la jii bi muy bisub sëñ Mountakha ah ñëw rek màggal gi suñu góor gi ki tax ñu ñëpp xam ñu ki tax ñëpp bëgguñu ki tax ñu ñu dàkkantale bëgg Fallou kontaan loolu yëgatuñ dara tey lu dul mbégte dara naqareetuñu dara metteetuñu namatuñu dara ndax sëñ Fallou moo tax nag tey ñu kontaan tey moom ñëw gi mbégte la kontaan te ndax namoon ko lool na Mbàkke ñoo ngi fi doon ñëw Saraja moom namoon na ñaari at yi julli jumaa ja naan ca biir Zamzam kaaya waa Makkata yaa bari ndam jaloore ak i a tiital mu ne su laa ŋaññati yaa di suukar